l'ancien DG bu Dakar Dem Dikk bi nga xamante ni jamono ji euh, wala lex sax laa ko mën a tuddee du ci mën a am nekkoon na Dakar Dem Dikk moom jamono ji ki ko fi wut di euh, kii di euh, ki nga xamante moom moo di Omar Bun Khattab Silla moom nag daal di génne ay kàddu tuuma teg ko parce que ñun duñ ay attaqué duñ ay juge duñ mën wax ne ay kàddu mu def mais tuuma lañ ko mën a jàppee jusqu'à preuve du contraire jusqu'à que pour respecter présomption d'innocence Euh, jëm ci gestion mauvaise gestion au niveau de cette direction de cette structure di Dakar Dem Dikk wax fa ay xaalis yu bëri ay 700 milliards wax fa ay deux 200 agents yu ñu recruter ñu nekk fictif wax fa ay licenciés fa set yoo xamante ni wax na sax soxnaam ci la bokk. maître Moussa tamit tontu forox tontu no si semaine bi joxe ay misaal moom ci oto boo xam ne nee nañ ci ay plus de xawma ñaate million la ko jëndee xaalis bu bëri euh, ci euh, quatre-vingt-cinq millions yoo xamante ni oto ba muy dawal ca la ko jëndee recruter ay sëriñ sëriñam yoo xamante ni salaire yu duun la leen jox fi may waxee man lu loolu moom ma yitteel euh, li ma yitteel mooy le principal responsable de ces de cette guerre de ces, de la querelles-là, de ces sorties simultanées, c'est le prison Macky Sall. xam nga tax pour man le chef de l'État mi am les prérogatives d'ailleurs yoon may ko ko di nommer di dogomee ko ko neex wante charte réew mi jox ko également ay sañ-sañ jox ko yoon xalal ko ay loi jox ko ay mécanisme lu ci mel ni ay corps de contrôle yoo xamante ni c'est pour que mu gën a faciliter liggéeyam ba képp ku mu dénk am saytu gu ci am ñu jox pour man ñooñu ñoo abilité à dénoncer une mauvaise gestion wala une bonne gestion ou bien dire une bonne gestion ce n'est pas normal maître Moussa euh, maître ki ma adresse maître Moussa Diop toog di wax ci ab gestion ce n'est pas normal ki nga xam ne moom moo di Omar Bun Khattab si la toog di wax ay gestion parce que ku nekk xam ne Sénégal ak ni ñu doxee nit ki lu mu la xamal démb wax la ko tey wala mu am mbubb mbubu bunt bu mu fa jaare pour man ils sont irresponsables ñoom ñaan ñëpp ci loolu mais ki nga xamante ni moom mooy le principal responsable de ces euh, de ces déclarations sur le président de moo war a jël ay matuwaayam ba direction bu ci nekk du moom du foofu dong de mu code de contrerie parce que gis nañ ko 31 décembre ne ndey bu ko neexee mooy te ku dem président de la République moo ñu koy yàq parce que moo jalgati am ngay code de contrôle nañu def seen liggéey jox la sa rapport rapport bi nga def s'il y a des affaire à y a le procureur de la République le maître de poursuites ouvrir une information judiciaire la justice faire son travail dans un pays qui se organise comment dire excusez-moi qui s'organise bien qui se veut démocratique noonu lay doxe dafay am ay règles ay loi ay normes am ay tëralin mais tey comme neex jug dig nañu fi conseil économique social et environnemental tëf Idrissa Seck ñëw du wax wax wax moom amee Touré nii sangam sangam ba say tey jii sax di euh, ay liggéeykat yu fa nekkoon yu mu jàpp ne dañoo bokk si moom fayuñ leen salaire ay problème yu pour man loolu président Macky Sall mu war a organiser son architecture gouvernementale organiser également ses directions teg réew mi ci yoon parce que loolu la ñuy xaar ci moom nit ñi dañ koo fal pour que mu jubbanti su lépp moo tax duñ soxla njiit état la man la moom ak ñeneen mais c'est le chef c'est le chef de l'état dañ ko jox ay ay ay ay ay ay ay prérogative jox ko ay jumtuwaay di ko fay jox ko oto buy jàll kenn du jàll buy wax kenn du wax ñu jox ko sañ-sañ yooyu yëpp kon suñu réew mi nañu ko organiser parce que temps bi ñu jël nit ñi di wax naan xaalis yàq na ay milliards dëkk bi nit ñi di sonn ñi lekk ñu ñi naan ñu ñi bëgg bëgg faju mënuñoo faju hôpital boo fa demee na la ko yàlla nëbb coole fi nekk euh, lu jëm ci wàllu njàng pour sa doom jàng jàng normal sax problème la ba tax nit ñi di bëgg seen doom yi dem ci biti ba sax ne ma yàlla baal bu ñu demee ñu ngi fi dégg jaare sow bi réer askanam sonn na président de la République jubli ci les questions de l'heure les questions urgentes yi taxaw jamono ji que bàyyi ay directeur di leen nommer lu leen neex wax lu leen neex def pour man loolu c'est irresponsable moo tax maître Moussa Diop également à raison à bien faire également de répondre parce que dañ ko dañ ko attaqué mu dem répondre rek da